الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أحرج المرعى فجعله غثاء نحو ñu ngi ci misaan fekk koo xam ne nag moom suñu kilifa la suñu soppee la mu Cheikh Alassane seen bu baax bi nga xam ne li ma naan man yàlla def ma soppe yàlla def ma bëgg te loolu laay dund sa biir xol loolu laay yëg mooy ñaan suñu borom guddal sa fan te bàyyi la fi di ngay dimbalee ni nga socialee wala yar yeeg teggin gi ndax suñu tubaab daf ko jàngal ni ku yorul ku yor dara ku amul teggi du tekki dara te gis nañ loolu ci yow ñun ñaan suñu borom ñu bàyyi la nga nuyoog waa réew mi baal ak baal di ziar te baal leen ak jërëjëf Fatou maa ngi lay sant bu baax di sant yàlla bu baax di réew mi yëpp ak di leen bal ak bis bu tedd bi di fàttali maam Ibrahima sallam alayhi salaatu wasalaam di fàttaliku ndono bi mu bay ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yàlla yàlla wàcce jàmm ci suñu réew di ñaan ci yàlla yàlla doon dal fi sutura bu yaatu yaatu yaatu ci réew mi foofu la mi jëm insha allahu taala moo tax wax rek ne nit ñi dal gën dal ndax euh, fii ñu toog nga xamante ne moo tax bërëb bi am bi mu dellu see ci tukkeem ak lañ ko def da ko wax ne jéggal na ñëpp jéggale boobu moo indi yëfam yaatu tey jii law law ci àdduna bi mu bàyyi ko la ci soppeem bu tedd ba muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla waxoon wa taxsha naasa wallaahu axaqqu an taxsha moom sallallahu alayhi wa sallam bi muy dellu si nag Màkka moom tamit dafa jéggale woon te jéggale boobu la mooy mooy nal jàmm ci réew donc maa ngi lay sant Fadel di ñaanu tamit yàlla barkeel seen liggéey ci daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam